lu war loon jotaay bi tey dañoo amoon conseil municipal war def wat budget en même temps ñu am cérémonie bu ñu waroon def pour jigéen ñi euh, euh, lancement officiel pour matériel nettoyage euh, président moo wax ni bépp commune ci Sénégal bëggatuñoo gis mu taq kon ci biir yëngatu boobu président santaane ci lañ doon def nu itam coppati ci li ñu am ci suñu budget muy néew ak bare ñu jënd ay matériel pour jagle ko jigéen ñi parce que buñ nee set jigéen ñi la ñuy gën a taamu ci setal ndax ñoo dëkk ci biir kër yi ñoo fi toog guddi ak bëccëg te it fii moom ci commune bi wax dëgg yàlla dans la commune ñu ngi sant jigéen ñëpp ndax jigéen ñi wax dëgg yàlla set setal la ñuy doon def dañ leen cee fekkoon dañ leen cee fekkoon nag dolli leen doole waaye li ñu nekk ñoom yàgg nañ ci tàmm nañ ko penc moo dem ci euh, dëkk bi day set wecc commune bi dëkk boo dëkk booba dem dëkk ba day set loolu dañ leen cee fekkoon kon dañoo ci matériel jox leen ko di leen dooleel waaye ci biir bi si bi ñu doon watewaat bàyyiwaat nañ xel pour jàppalewaat leen pour gën ko yokkaat. ci biir commune Daara mbos def naa fi ñetti case santé am na benn case santé bu nekk Ndewen ma ngi fonctionné am na benn case santé bu nekk Yugure Maas war a ubbeeguñ ko maa ngi waxtaan ak sous préfet pour ñu war ko ubbi ak bu nekk Caaja équipement yi pare na lépp pare na ubbi rek moo fa des. ICP bi formé na ka fa war a ne ba loolu pare na ubbi rek moo ci des. loolu jot nañ ko def ci diir leen fi ne def nañ ci adduction d'eau lu mat juróom-ñaari village def nañ ko adduction d'eau fii ci commune bi euh, diir lu ñu fi jot liggéey wax dëgg yàlla euh, commune bi daal gàcce ngaalaama conseil yi liggéey bi rafet na baax na yan jafe-jafe am mooy ci wàllu courant buñ ko seetee courant bi bi fii rek la yem dëkk commune bi mu ngi mu ngi màcc doole doole jàng ci soow bi waaw daara mbos rek la la courant bi yem ko dëkk juróom-benn daar ñoom fukki dëkk yi ak ñeent yi des ci àll bi kenn mu ci courant te it bëgg ñu wax dëgg yàlla ñoo am courant euh, fii nu taxawit ku ne xam na ne amuñu chaise hôtel de ville amu fi lii fi nekk nun noo def si nu moyen bopp point moyen bopp pour def ko pour man ciy def réunion euh, wax dañoo bëgg nag état bi jàppale nu wax dëgg yàlla ba ñu am hôtel de ville parce que bu ñuy wax mairie nag hôtel de ville a tax waaye mairie sans hôtel de ville kooku wax dëgg yàlla kenn xamul lan lay nuru Euh, yoon wi ngeen jaarit gis ngeen ko ni mel metti na lool booy tukki ñaari mbubb nga yor waaye laa doo mën a tukki kon loolu it bëgg nañ ñu dimbale nu ci defaral nu yoon wi ba wax dëgg yàlla nu am ni suñu naw am nu am ko kontaan nañ ndax set moom ku la koy jugo di jubóo ji xam nga ne kontaan ndax ñu fekkoon nañ ci set waaye moo bëgg mu gën dañoo jàppale ñu gën a set ndax jigéen defar mu set sa bale sa kër mu set bale say mbedd mu set say kër set ci lañ lay ci sante bég ci yow ku dikk kontaan ci yow kontaan nañ groupement yëpp sant nañ gërëm nañ ndax kontaan nañ bi nu monsieur le maire woore bañ dikkee kontaan nañ lool dëgg yàlla kontaan nañ xanaa ku dem sa dëkk nga ngay wax say njaboot ñu génn bale mbedd yi defar seen comme ñu def seen kër ñu di ko def mbedd yi bale ba mu set defar ba mu set boo semaine bi ñu bale defar ba mu set wecc ndax jox nañu matériel te ay gone lañ ay ay gone dong lañ yor gone leen kii ñu bale mbedd yi defar mu set ndax kontaan nañ ci moom rek ndax lépp loo xam gis na mu baax rek yéene nañu ko kon nag dañ koy ñaanal ñun ñaan lan am nag waaye nañ koy ñaanal rek yàlla na fi yàgg lool te wér moom lañ koy ñaanal. tey euh, dañ fi ñëw euh, sur invitation du maire de la commune de Darou Mboss pour d'abord euh, fekkee le vote du budget bi ñu voté budget ba pare ensuite mu am une deuxième cérémonie muy remise matériel bii nga gis. xamné avons ay brouette la ak ay pelle ñu jagleel ko groupement euh, commune <coughs> groupement yi nga xamné ñu ngi ci village bi ci commune yépp muy 22 villages voilà donc nous tax ñuy ñëw teewee parce que so gissé loolu yépp am le président de la république dafa lancer un programme zéro déchet manam ñu sétal dëkk yépp mooy euh, ci communes yi ci villages des ci villes Mais pour finir, nous fi dem bon ñu ko ba nga euh, Sénégal dina un pays un pays propre bi ko le maire de nag qui la jël un fonds propre euh, nous sommes 2 millions et quelques fait fi matériel pour les groupements des femmes qui nga composé sa commune muy un geste bu lui, parce que ça participe bon à vraiment mettre en œuvre la politique de l'État donc ñun loolu dañ ciy kontaan di ci sawar et koy remercier tey ñaan groupement yi aussi su ñu demee euh, fépp village bu nek, nous ñu woo population yi informer leen alors ñëpp jàpp ci ba nga xam ne dëkk yëpp dinañ set dëkk